Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur ñu ngi leen fay rafet seen taxawaay waaw si si ngénteel Mapsa bi waaw leen waaw ñu ngi sant borom bi wér wér ñu ngi sant waaw dëgg la maa ngi doon génn sama xam nga période tabaski bu ñëwee ci xar yeeg yooyu la ñuy nekk yooyu dem dingiraay wala ndimba njaay wuti yooyu yooyu si la ñu nekk quoi mais bee paas sax defoon naa kii sorte te yàggul dëgg la dëgg la waaw xar dina yomb du yomb daal mais xam nga sans dépense ñun rek Sénégal boo dee xar tey boo dee maanaam bu ñu nee cuve mondial lépp la bu njëkk ba ba fi yenn président yi ne da nga naan gaz moo manqué ñoo xam ne gaz mais da nga naan lépp ay cher léegi bu dee mburu lépp la ñu yokk boisson lépp a yokk xam nga loolu day nekk crise mondiale boo xamante a a mën a yomb quoi foog ñu bari nee nañu dañu tëj frontière bi diggante Mali ak Sénégal xar mu ñu jugee Mali dugg Sénégal. waaw mais ñoom dégg naa ñuy wax loolu mais sans départ rek xam ne mën naa xar mën naa mën na bañ a am loo ñëwagul moom mënoo ci wax moom am de mi ngi bu président waxee te dëkk yi joxe xar it bëri nañ fi Mauritanie ngi feeg ñëpp te am nañu xar yeneen dëkk yaa ngi fi am pagaay du Mali rek mooy joxe xar yeneen dëkk yu ñu wër bëri nañu fi ñëpp bëri na fi waaw xar mën na am mën na bañ am daal waaw mi ngi noonu dimanche bi ñu jëm dafa am journée bu mag bu ñu jëm muy waa jàmbaar production organisé diggante Franc ak Sokh combat boobu noo ko gisee waaw combat Frank Sokh maanaam combat la ndax bu woon combat ñoom ñaar du ñu jëlante seen biir am de di doon loo combat boo xamante ñëpp a ko xaar am de combat boo xam ñëpp ko bëgg ndax boo làmb sax demoon naa ba man du ma ci mais tey Mansour mi nga xam da koo tëgg nekk sama rak nekk du yaru jox yar am comportement ku mu gis lay raam nga xam ne loolu bu ñëwee tey dëgg dëgg combat ba mel noonu da ngay ñëwaat sant ci di ko ñaan li mu def yàlla na ko defaat déwén boo xam ne am na yar Mansour ba di ko ñaanal di boo xamante ne li ma daan wax rek Franc sama rak la waaw di Franc sama rakk la rek mbapat ba ma daan bëri daf ma doon taxaw di ma seetaan am de di ko ñaan di Franc gis naa ci moom catégorie boo xamante ni ci maanaam maanaam gis du may waxantu mais gis naa ci moom loo xamante ne pour nit daan ko billaahi wallaahi di nga wax loo xamante man làmb du ma bëgguma ci di wa werante ndax mbapat sax dama daan toog ni la mbër mi day génn wala du génn booba bëreeguma sax ay làmb man dama xam ci làmb mais Franc pour nit daan ko ndax dafa noonu loolu lépp lu ñuy wax ci mbër mi ngi ak Franc Franc du génn du tooñ du def dara foo ko fekk mi ngi entraînement di ñaan nag Franc nga xamante ni suñu rakk la suñu jarbaat am déet fu ma gis jox ca di ko ñaan yàlla na ko yàlla may ndam ndam lu leer nañ ni bi dina xam franc. ci kaw nga xam ne waa 200 pour cent Pikine dañoo génn ànd ak waaw dëgg la tey bu deux pour deux pour cent bu génnee tey ànd ak franc tey ànd ak deux pour cent bu génnee tey ànd ak soq tey tey parcelle boo xoolee ñu génne bu bu deux cent pour cent génnee quatre cent pour cent it dañuy génn parcelle ñëpp dañ koy ñaan ndax xale yi combat déclenchement bu mu ñëpp dañ koo soxla am de lépp lañ koo soxla te làmb dama ci werante ci boppam làmb dafa doon loo xamante ni am de làmb man ñu koy dicté nit ki moodul noonu ay defali làmb dool gis nga làmb ji ku teey am de dañu xam suñu mbër muy franc teey na te lamb jooju ñu xam bi ñu bëri dañu yaakaar lool du lamb gis nga lamb boo àddu siflee ngay xam ne lamb franc dafa naqaree daan du question dama koo li dama koo topp dafa ma topp ma ma jàng xam ay qualité am bëri amul benn mbër bu taxaw Sénégal nga dàq bëri franc amul non déggool bu ñu wëpp bu du woon daanaan duñ leen boole xam nga boole ñu yaaw jaar ak soox boole ñu yaaw jaar ak franc buru woon naanaan duñ leen boole ndaanaan rek ñooy ñu boole ñoom ñaar dañu xool kon ba ñu bëggante xam ne ñii ku ñoom tax ñu boole leen am de moo tax ñu boole leen maa ku naqaree bëril barke alxuraanu karim li ma la wax waxaguma ko sax naqaree bëri waxoon naa la ko ca taay 22 am de di ma ñëwaat ni ma wax man dama xam xam catégorie mbër ama seen mu ne euh, bëre téeméeri junni waaw loolu waxu Eumeu Sène la Eumeu waxul lool ñu dàq ko Pikine loolu waxam la di Eumeu Sène kay bu waxul lool ñu dàq ko Pikine man ma nga laajee lu ma la Franc dàq bëri parcelle bu jee du question la du dafa am yoo du question fa dama xam nit ki kii mbërëm di ko jàng di ko jàng dama dégg ma xam Franc dama xam goney parcelle yi lu ko jëlee caat bi ba ci ndaw barke alxuraan ñëpp laa xam seen mën a bëri ndax du nekkuñu woon ci équipe bi ñëpp tey boo dee xool tey ni Ousa de sama rakk yi toog nit dàq koo bëri barke Rose ba Safa Gueye nit dàq koo bëri Maodo sama rakk Tafa Jor kenn ñëpp mën bëre man mi di wax ak yow bëri naa ba bàyyi nit musul laal sama tànk ku ko mas a laal leel góor a soog kenn dàq ko bëri ci àddina bi Balla Diouf waxi nopp kenn dàq ko bëri ci bopp Tapha Zone làmb moo mel noonu ku ne tey Eumeu Sène bu waxul bu waxul bu waxul lool ci soq kon ñoo xanaa dañ koy dàq pikin pikin képp dañu génn dooleel soq ah kon parcelle ñoom ah, génn ñaar la mën nga génn publicité mën nga bañ a génn publicité barke alxuraanu karim billaahi wallaahi soxla combat bi franc da koo soxla parcelle ñëpp ànd soxla billaahi wallaahi taala ñoom nañ ko soxlaa ba dajaloo ñoom ñëpp ma gis leen ñun noonu lañ dajal wax billaahi wallaahi taala barke alxuraan yàlla nañ leen may wér bay leen ñoom ñëpp ba bis ba làmb ja a mën a daanee sox bëreeg moom ba daanee tey nu mën a daanee sox boo ko waxee tey man maa naa cee gëlëm ku jël chef de ki jël ndef leen ñaata junni yoon chaque dimanche nga dem jëli ko day vingt cinq mbër moo rangal leen ñëpp yow xam ne loolu boo ko mu koy wala kele bu muy def loolu mu ko football làmb lépp mën na ci am ñëw ba ci làmb sax miir bëreetuma am na ci làmb wala nga ñëw dama déchiré wala dama gaañu man lépp am na am de di doon franc bu da booy bu férié bu férié duñ ko wax na xale boo xam mi ngi entraîné mosoo koo dégg ci lu ne soq bu entraîné woon nekkoo ci dara duñ ko jox franc ñoom ñaar di làmb boo xamante ne barke alxuraanu kërim ñoom ñëpp dañ koo fonk nu ko pikin fonke noonu la ko parcelle ñun fonke barke alxuraanu kërim te du génnaat parcelle bi parcelle la waaw dëgg la soq moom moom fi waxam la moom lu mu entraîné ba gëm ci loolu waxam la am de ñun lu ñu entraîné ba wax ba gëm ci franc ma gis qualité am loolu laa wax loolu dëgg la loolu moom waxee loolu moom la mais man ñun ñun parcelle ñu waxee koo laaj ay xaadim dañ naan la tey ñun franc xale boo xamante am déet roi des arènes tey bu am déet yàlla na fi nekk tey soixante ans tey buñ ko peetoon tey mën naa ne franc koy indiwaat barke alxuraanu karim billaahi wallaahi taala roi des arènes yàlla na fi nekk soixante dix ans tey bu ñu demoon tey ba perte droit mën naan tey franc ndax dafa doon xale boo xam ba may bëri mbapat ji Moussa Dioum mi ngi xale di seetaan am déet di ñaanaale Moussa Dioum koo xamante mënuñu koo fàtte ndax suñu rak suñu xarit la ñu maasandoo ci làmb juddoondoo ci làmb am déet yàlla wërsëgee ko noonu ci boppam lañuy wërsëgee nga xam ne wërsëgu làmb bokkul man defaraguma ponkal muy bëri mais yàlla da ko jëm defar ay franc ay yandaay ñëpp ne ci ko te ko ko loolu sant yàlla la man mii defuma ko wax ci mbaaxu nit wàññul ci àddina yombal xem di ñaanal sama rakk bi fi jóge muy Móodi moom ñoom ñëpp nekkoon ci man na yàlla jële ko fi am de te ku dem du sa coobare yàlla moo fi ne nit def lu tax mu dem yàlla moo dee mooy programme lépp am de di leen ñaanal yàlla na leen yàlla yërëm xaar leen àjjana seen bàmmeel waaw ndax ñoom seen comportement rafetoon nañ fi am de di ñaan nag Ousa Dey ba ñu xale ba léegi barke alxuraanu karim nun nekk ci Ousa Ousa Sow yore ñu Ousa Sow yore ñu yar ma jox alxuraanu kër musuma koo xam ne kii cër gi ma jox barke rasulullaay du kenn koo xam ne jox na ma ko moo tax Ouza 2 ku mu joteel barke Muhammadu rasulullaay du ma laajte mu tooñ la ak ñàkk tooñ la barke alxuraan billaahi bu may ñëw di laa ilaaha illa lool jor bu may ñëw di barke alxuraanu kër ndax kii comportement dafa rafet ñëpp la yemale Ouza 2 ñëpp la bëgg Ouza 2 ñëpp la bëgg ci àddina barke alxuraanu kër am na wax yoo xam du ci bëgg wax sax ndax moom moom taalibe la barke alxuraan boo gisee Ouza 2 baal da ngay am nañu 60 ans Ada jox Balla Diouf cër jox Tafa do cër jox Maodo cër jox Gris Bordeaux cër jox Oudaay Diouf cër jox Tafa Junior cër comportement benn ci bind jox Maab sa cër comportement la Maab sa Maab sa sama rakk la doole Maab euh, non Maab sa sama rakk la jarul wax ci Maab sa tuuti Maab sa sama rakk la ni Oudaay Diouf nekkee sama rakk ñoom ñëpp ci man lañ nekkoon Oudaay Diouf moo ma jàng ma jàngal bëri ma ci lamb yi ki ni junior yooyu yëpp njaay envie lañ doon ñoom ñëpp am na fu ma jaar ak ñoom kon buñ koy nëbb Zarko ñëw kon na ci man ñoom ñëpp si barke alquranu karim da sama entraînement may dirigé nekk ci man Ousa Dodo ma barke yonent Yàlla Mohamed man bugguma di wax. Zarko barke wax ba bay ma wax ay Zarko ñu raw Zarko nga na ay Zarko ah ba ba ba ba nga yow yow kon man dama dëgg la non dëgg la tey nit ki àddina amul solo làmb ñun lu ne def nañ ko ñun tey man ñun ba ñu juddoo boo nee ba tey ñëpp ma xam ci làmb barke alxuraan kër sama mbapat sax moo yàq sama arène billahi wallahi taala sama mbapat moo yàq sama arène barke alxuraan kër mais làmb bu ñu defee rek di ñaanal ma sama nga xam ne tey ngénteem den di xale bu jox nit cër moo tax ñu ñëw am di refet njot lépp saal de sax fu ñu xarit badara ma ne parce que heure bu ngeen bëggee entraînement ñëw leen moo tax ba kii nga loolu comportement la ñu ngi ci làmb di bëre ak ñi nga boo dee xool ay biir bëgg làmb ñoom dañu bëgg làmb te boo leen xoolee ñëpp dañu war a bëre dañu war bëre billaay wallaay barke alburi xoola tey làmbam ñëpp koo xam ci àddina ay booyam ñoom biir de mer alburi ko xam xam ay agogo ñoom dañoo leen a waxar jàmm ñu bëri ay xale lañu barke alxuraanu karim mais ku ci am problème ñëpp tak ku ci jotee mbëru parcelle su ma ñëwee du ma laajte damay ñëw rek dóor barke alxuraanu karim billaahi wallaahi taala la am taalibe Touba nit mënu koo bëgg sëñ Touba barke al sëñ Touba tekki Mouhamadou Fadilu ñoom rek bëgg barke man taalibe laa kon parcelle dañu manko am doole di ñaanal ma fa li mu tudd di ko ko yàlla may wér bu dul jeex na ref comportement am dafa rafet fu mu la gis da lay nuyu am din maam jox cër Ousa 2 moo rawati tey parcelle bu ñu doon def monument bu ñu ma ko ne damay jëlaat monument bi jox ko Ousa 2 barke yoon déedéet man dama dama ko ndax yar jox nit monument est a tey yooyu du ma ndax trente dama ne ci loo xamante samay jarbaat ñoo xewle ak samay rakk am din mi ngi noonu tey Ousa 2 yaram ak tegginam di ko ñaan yàlla na ko fi yàlla bàyyi ndax lu ne da koy defal barke alxuraan ko dafa am jàmm damay ñëw sax toog. dëgg la. waaw mariage Ouza 2 xam nga nit ki nit nit ko te gisul ku mu bëgg. waaw Ouza 2 téye na boppam loolu gisoo ko bëgg. <laughs> non gisoo ko bëgg. non dëgg moom barke alxuraan la. Ouza 2 bis bu ko bëggee barke Rasulullaay ma bakkan barke alxuraan koy bu bëggee tey xool ku ko bëgg xam nga jigéen dafa doy waar. benn jigéen bëgg ko te kooku xam ne kii taalibe kii taal barke Rasul balaa ngoon ñu may Ouza ndax. nu ah, waaw waaw sëñ bi moom bi waxee ma ne du ma teg wax ndax sëñ bi comportement am la ñuy dund ba léegi comportement murid la ñuy dund dafa am solo Ousseyn de nit ku baax la ku am comportement la ku am yar la barke Rasul la ñëpp ko bëgg parce que doo gis mu jotee kenn lu tàkk dina ko fexe fay ba def ko glace a coton loolu daal yéeme na barke alxuraan kër billaahi wallaahi taala